bul fàttee bés cloche de notification bi pour vidéo buñ dugal nga mën see jot. jaajëf jàkkaarloo bi Sénégal yi doon xaar yegsi na le 6 décembre nee nañu aji ak Ousmane daañu daañu jàkkaarloo jàkkaarloo gi nag mooy damaa jàpp ne mooy ndax yaa def defuma kii ndax moo la def moo ma def ku ne génne say preuve noo gisee le 6 bi nga xam ne nee na ci la aji Ousmane war a jàkkaarloo. waaw loolu de am solo waaye nag xam naa li ma dégg si rajo yi ñu ne le 6 décembre la Adissa. Ah, waaw kon foofu li ma dégg ci sama yëf li ñu li ñu informé. waaw ah, da nga jox li nga gis si ñoom. waaw nee nañ si bopp. ñoom. Euh, bisu téesante bi. waaw téesante. nooru téesante. ñoom noonu lañ ko waxee. waaw ñëw béykat yi dugal leen téesante. Mm-hmm. Adji Sarr Ousmane Sonko. Mm-hmm. waaw mm-hmm. bu dee téesante la moom njariñ li bëriwul. bu dee teesante bu dee teesante mooy toog yàqante der mooy teesante mooy teesante yaa ma ko def defuma la moo ko defee yaa def nangam loolu te du njariñ li du loolu Ousmane Sonko def ah loolu laa lay wax ñoom ñaar benn beneen bi man sama gis-gis lu war a am la waaye kañ la war a am man su ma sañoon ñu bàyyi ba coupe bi ñëw bañ feetu ba pare loolu coupe du monde bi bu egsee bañ feetu ba pare après ñu daal di doog a ñu daal di doog a kii waaw ndax xam nga ñi nga xam ñi ngi liggéey ñi nga xamante ni maam foo leen gisee rek man nañ xar kanam yooyu sax lañ amee léegi leen gisee am xam-xam boobu lañ am amuñu xam-xam fan yii sax jamonoy ñu ngi jéem a waxtaan si Macky bi. Hmm. kon tooy bu leen indilaatee Ousmane Sonko Adji Sarr dañuy dañuy bàyyiwaat Macky ba continué waat si loolu ñu daan def Ousmane Sonko Adji bi leen si. soo bi la. après hmm. match Sénégal bi ba coupe bi ñëwee ba pare bañ feetu ba pare. ba mbir Macky mais woote bi woo rek la Assane. soo ko wuyu dina barki dem xat dam mais xam nga tey jii diggante bi xam nga ñu ngi waroon wax si kuréel bari ak nampali. lu ci wax lu ci wax pour xalaat bi daal. déedéet yow laaj na la sànq li ñuy wax nga ne fi naan ay. gis naa la dégg naa leen nga Ousmane Sonko a dem bu ko ko war a wax bu ko waxee nii bu alxames see Cheikh Bara Ndiaye ñëw ak El euh, Hadj Sarr Ndiogu waaw Cheikh naa ne waaw euh, Ousmane Sonko. lu mu nar a lii la ko war a mën a wax siis bi lii dong la ko war a mën a laaj bu ko laajee lii lii la ko war a mën a wax diñ ko tegal sëñ Bara Jolof la ñëw waaw déedéet Cheikh Bara tey Ousmane Sonko Adji Sarr il faut mu leeral ak ñu si ak ñeneen ñi nga xamante ni plateau loolu lañ maîtriser Ousmane Sonko Adji Sarr waaye nag ñooñu dañ waroon a pause ñu dem dem waxal ñu si marché bi ba coupe bi ñëw ba pare ñu doon ñu indilaat ay Ousmane Sonko Adji Sarr dañ see sonn. d'accord léegi ñëw nga ci rajo yi ñu wax par yow loolu lu sa wax yow. say information dañ see sonn laa dañ see sonn. dañ see sonn mooy ay xalaat mooy mooy ay information. <laughs> sonn nañ si Ousmane Sonko Adji Sarr laa wax kay. loolu information say xalaat booy dañ see sonn. waaw ah nit ñi si dimbali. spiritual rek bu gën jaani la yeesoon eh, te barkeel bu dee aw lim jaay ci la jëlee xabaar ah, alaaji dégg naa la ci suba nga mel ni ku ñàkkal fayda yi fii daan ni jaru ko woon waaye ax ah kay def naa jar na ko maa ngi la koy wax ni la ñaari atu yàlla bu nit yoree eh, aw làmmiñam ak ay mbootaay ak ay avocat di wax ne diw ma fii la ma ko defee nii la ma ko defee ñaari atu yàlla ñi bëgg Ousmane Sonko ñaari at yàlla di wax ne waxut dëgg waxut dëgg day nangam waxut dëgg ba am na ñu doon wax ne Ousmane Sonko moo def tey ñi ngi naan deful lu tax nga ni toog gi jaru ko te ñu bëgg woon ñaari ndey mi lii ñu toog wax. waaw d'abord Ousmane Sonko lu ñu wax ne moom la def. dañu wax ni dafa violé. loolu lañ ko jiiñ. loolu lañ wax. Hmm. dafa violé. waaw dossier bi dossier lan la. waaw. viol lan moo koy firnde ne viol la. Euh, certificat médical ci la waaw bokk na ci. waaw certificat bi lu wax ni moom la wax. mooy dara nekku mooy viol amul. waaw kon loolu benn la. ndaw si moom bi muy wax lu ndaw si waaw. waxatuma viol. waaw na bi dossier lan la. viol. léegi bu dee certificat médical. waaw wax na ni viol amul. ndaw si ne waxatumay viol. waaw léegi bu fekkee ne bii dossier bi dossier viol la. dossier bi kay kon leer na. kon leer leerul ah ah day ah si nee na waxatut viol bi kat du loolu la. ah mais El Hadj yow gisoo justice bi ay nit yu bokk ci dossier yoo xam ne eh, du na eh, leen ci Mamour Diallo la xam nga ah, tey remaniement bu mujj bi fal nañ ko. xam nga tey te tudd nañ ko ci dossier xam nga tay xam nga tey maanaam même bu ma la mënoonu dara. naa la ñàkkal fayda pour man hmm. yëf yi. foofu la dañ ko a ñàkkal foofu la sës même bu fekkee ne bii leer na ma ni yëf yi mënuma ci dara xam naa ne lii yëpp du dëkk parce que ndaw si wax na lii kii wax na lii mais nañ la naa la ñàkkal fay la nañu di gone gu naan li ràng doon wax naan o oh, aji non vraiment gone gi saar ay bi ma def fuux nañ ma fii baaraan nañ ma fii xam nga li ràng waxoon doonu loolu mooy loolu mooy loolu mooy dellusi. comprendre parce que wax. ku ñu soxal xam nga li mu wax dëgg la comprendre nga. c'est que ne ko li ma def yëpp nga génnati naan ku nekk saar génnati fii lañ ma ruux ma lii vraiment sonal nga ñu mais loolu rek mooy li nga xamante ni bii fa la fa la yëf yëpp jëmaat après. Hmm. wax ji yëpp loolu rek maanaam. Euh, ñii wax ne teesante. donc hmm. teesante du am teesante moom ñaar nit ñoo koy def euh, naa ni hmm. waxoon jàkkaarloo wax ngeen. ci sànq wax ngeen ci sànq ay mbir hmm. am na loo xamante ne bi waxoon nga wax wax waxoon nga waxoon defe naa yaa ma ko waxoon. waaw euh, que moom li mu gis mooy. Euh, bu Sénégal gagné. Mmh. mën naa am. waaw parce que gars yaa ngi ci kiiwu mondial bi. waaw dama koy delloo xaw ma yaa ko defe naa. waaw ni booy ne booy am na booy yu ne. bu Sénégal demoon ba tëkk bal bi bay waaj a dugal ñu ne jàpp nañu Ousmane Sonko gars yi bàyyi fa bal bi. <laughs> daa doon ko wax booy wax ci TikTok. waaw <laughs> daa doon fa la ñuy bàyyi bal bi dem. <laughs> comprendre. kon mooy bàyyi ak c'est que li ñu war a xam. mooy mbir mi mondial nelaw loo wut yi gars yi xam ne ñu mondial bii mondial la rek si mais gars yi seen avenir lañ jël euh, tay la ko mm-hmm. te loolu nag duñu seetaan ay ngari di divertir ci ay mondial c'est ñoom bu dee lool la xalaat tamit ba tax ñu bëgg koo def ci période bi li ñu bëgg def nii naan euh, yóbbu ko fële pour jéem a kii loolu moom en tout cas man de damaa gëmul sax parce que amul bi war na tax ñuy jàkkaarloo quoi man fi ma fi euh, am xam nga gëwuma ko nit na am mm-hmm. même bu amee li asan naan teesante lu tax mënu ko avancé li ba yàq mm-hmm. yaa wax fii nga ni juge bi ba mu jàkkaarloo Ousmane ni ko xale bi nu ngeen doon def dana ko ba mu ko waxatee ma yaa ko wax. te noonu la ko loolu bu ma ko ma ko laaj. kuy woo. duñ teg Adji Sarr mu toog ngay wax ak moom. xam nga Sonko du wax ak. loolu tax Adji Sarr ñëw. te ba ba léegi benn yoon la Ousmane Sonko a ah? li nga wax nii moo tax Adji Sarr ñëw. ñëw fan. ginnaaw comme ça nga wax man la ba ma ko waxatee. Hmm. léegi man mënatuma la ko wax ma la ko wax waaw moo tax ma ne téesante du am. wax lu waxee lu ko neex comprendre loo xam nga nit yor discours préparé kay ma. aji yor ay preuve. ndax aji ñi nekkoon ak moom nee nañu. aji yor ay preuve day nangam sàngam. gis boo yoree discours boo ñëwee toog ku yor discours préparé. nga xamante ni bii waajal nañ ko ñaari at. ne ko boo jàkkaar waxal ni ndaw xam na mu gën a ñaawee. bu ñëwee wax la wax ay waxam rek yow moom soxla ngay. jëru toog mais si naa la parce que boo ko waxee boo ko tontoo mu daal doon noonu kaay ma Ousmane Sonko ñàkkul fay la. benn waaye si naa joxe ñu nga loolu waxi xam nga waxu jéem a préparé nit ñi ak jéem a jaaxal. xam nga ñoom fekkee ne ku ñëwul ma toog ak Adji ma wax la leen nag Assane. que ni nag ñooñu di wax. xam nañu Ousmane Sonko ñoom ñëpp xam nañ ko nag nag tey gis nga réew mi pour ñu continuer di ànd ak dal nañ jël dossier bi teg ko ci suuf hmm. parce que dossier bi sénégalais yi àtte nañ ko ci seenam xel ba pare mënuñoo hmm. dugal leneen ci seen bopp hmm. xam nga lan lañ mën a seen bopp que yëf yi nii la demee parce que sénégalais yi loolu moom mooy li nga xam ne moo nekk ci seen bopp donc nag euh, di jéem a tegaat leneen jéem a dugal réew mi ci guuta la te réew mi soxlawut di dugg ci yenn guuta yooyu attanuñ ñetti fan yi fi toogoon rek dëkk bi di tàkk ay problème yi mm-hmm. kenn xamut ñu ba léegi am na ay jafe-jafe yoo xamante ne bii ñi mm-hmm. xamante ne bii ñi ngi koy doon am na ñoo am ci lañ ñàkk seen liggéey ba nëgëni mm-hmm. c'est parce que am na fu yëf yi tolloon léegi bu dee dafa am ku gëm loolu ne la yi duñu toll foofu gis nga xale yaa ngi nii monde bi gis nga ni xale yi dawee ñëw ci pare bi léegi yow la xale yi bëgg xale yooyu bi Coupe bi ñëwee nii lañ dawee woon topp la ba ñëw pare mm-hmm. élection ca tegu dañu laa musta am assemblée am fa mm-hmm. kon xale yooyu ñoo demaatoon ci mm-hmm. ñu yeewu tuuti te a ko fooye waaw ah, daal bàyyi yow daal jàpp nga ni daal kon jàkkaarloo dana waaye yaakaar naa ne borom xam-xam yi wax si lu wax. bàyyi borom xam-xam yi yow borom xam-xam yi partagé wu ko yow boo ne borom xam-xam yaa ko kay. ne man sama sama xam-xam bi daa dëpp. mais daal en tout cas. li ma ah, gis borom xam-xam li ma gis ñii. sa xam-xam moom ñàkk nga ko ban maa góor ngoom yàlla. waaw may may may ma jàng temps bi jàng na. jàng nga ko ba non damay wax si ñi nga xamante ni mas nañ leen tuumaal lu mel noonu maanaam jàpp nañ leen ba tëj leen te te te kii wuñu ñoom ñaar tooguñu teesante ku ne yaa def yaa def jàpp nañ ne. non non desk amical moo waree ni lii am na. ñi am na ñoo xam ne dañoo waree certificat médical moo waree ni lii am na. Hmm. comprendre hmm. certificat médical bu waree ni lii am na. jaajëf jaajëf sëriñ Assane Fall ma nga ca kii ba.